mi la ndaje nag ñu ko doon amal ca Touba Mboussobé ndaw yi Mboussobé yëpp dajale woon seen i doole ci njiital Cheikh Thiaw ànd ak yeneen i association tête de responsabilité politique bu mag bi di soxna maam Xari Mbàkke Murtada ñu dalal ko ni ñu dalale buur gannaaw loolee nag ndaje mi la tàmbali Abdoul Fall di jàmbaar ju ñu ràññee lool di sàkku ci soxna si ngir mu mën a taxawoo askanu Mboussobé si yaay seen bunt ci Serigne Touba di seen bunt ci état bi mu bëgg nga jàppale leen ndaxte jigéen ñi am nañ ay boobu ba nag ni mbootaay ne am na luñ nekkoon waaye dañ ne nañ leen may bañ noppi ndax bëgg nañoo gisee soxna si bëgg waxtaan ak moom kon nag bëgg naa nga jàppale mbootaay jigéen ñi bu baax a baax a baax a baax a baax ñoom nag lépp luñ am bu soobee yàlla bëgg naa ñoom ñëpp muy mbusoo gi ba yëpp ñu topp sa gannaaw ba lépp loo bëgg bu soobee yàlla ñu defal la ko. gannaaw loolee chef de quartier bu mbusoo bi di xamle ne soxna si bu tëddee mën naa nelaw askanu mbusoo a daal maam bi gii da nga ñoom ay góor lañu waa Mbuso yi waxoon nañ ma ñoom bàyyi nañ politique waxoon nañu kenn du politique waaye bu ma leen ko waxee wax leen ni mu demee lépp ni leen maam Serigne Mbacké moom suñu mu bëgg dañ ko am soxna yi jafe-jafe yi ñu doon wax man teg naa sama bi bari na lu manqué ndax courant bi na mu war a demee nii ndox mi na mu war a demee demul nii aw yoon nag amu aw yoon amu fi kenn ku ne na fenn fu ab Mbousso bi ni Mbousso bi moom amul lenn lu niroog goudron amul fi moom kon nag loolu bëgg nañ ko ci jàppale bëgg nañ ko ñu yokkal bi ndax quartier yu bëri bëri amuñu courant fii marché Mbousso bi loolu jàppale ñu nga xam ne moom mooy wàllu jigéen daal fas naa yéen bëgg nañ jàppale ñu ñu jàppale ko ñuy doon seeni jàmban nag mel ne dugal nañ ko ci nopp ku tëx ndax soxna maam xari Mbàkke indi na leen ay bale ak yeneen i jumtukaay yu mën a jëfandikoo waa Mbousso soxna maam xari dégg na li ngeen wax dégg na waxi financement yi dégg na waxi dimbali yi ak dégg na li nga xam ne moom ngeen wax ci SONES bi seen i ronkoñ na jeex tak te xam ne doomi Cheikh Moutala Dieng far na doomi Cheikh Moutala Dieng nee jox na leen ay gaal yéen jigéen ñi gaal gu am na la jaay saa buñ koy sappal borom soxna maam xëri dana yable teg ci lay ji bëgg ngeen góorgóorlu bu financement yi dikkee mu doon ko ci soxna maam xëri nee moom Touba rek ko ñor te dëkkub sëñ bi bu sañoon waxtu wu ne muy set. soxna maam xarit nee na li jigéen ñi di jooy politiciens di leen ko nax da koo métti moo tax mu dugg ci terrain bi te président Macky Sall rek ko ñor. maam xarit Mbacke di jàmbaar lool ci parti bi di APR di xam le ne xemmemteefam mooy taxaw njiit réew mii di président Macky sàll ba mën a gañewaat fii ci Touba.